ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñaar fukkeelu jotaay ak ñett ci téere bi di xalimag leer ba tey noo ngi ci wet gi nga xam ne dañuy wax ñaan yi sëriñ bi di ñaan ci ay mbindam tey nag noo dikk ci xaside ko wax soy naa linsaana mooy xasida goo xam ne sëriñ bi aaya jooju la ko tënkee aaya ji sunu boroom di waxee ne daa dénk doomu aadama ñaari waajuram ci ñu rafetal nit ku ne war a rafetal jëme ci ñoom woosay naa lisaana xasida la goo xam ne sëriñ bi da ci ñaanal ñaari waajuram mu tënke ko aaya boobu xasida gi ay bayitam toll na ci ñaar fukk ak juróom vingt cinq bayit mu ngi ci ñaanal ay waajuram njëggalug yàlla jépp àq ju ñu ameel doomu aadama sunu mi ngi ñaan sunu borom faral leen ko mu ngi ñaan sunu borom defal leen ak mucc ci mbugal ak xisaab ak ci yeddeel defal leen it yërmande ak texe gu sax defal leen mucc ci yeddaange ak bàmmeel ak ci bispenc defal leen ak mucc ci tiisu dekk ak pang ma maanaam bu yàlla dee dajale mbindeef yépp ginnaaw bi mu leen dekkalee mu ngi leen di ñaanalit yàlla yërëm leen ni ko ni ñu ko yërëme woon ba muy ndaw ñu di ko teete lii lépp rek day wane ne sëriñ bi bàyyiwul dara ci lu jaam bi soxla di ko yittewoo ndax xaside gii di wasay naa képp ku bëgg ñaanal ay wajuram mën na koo jàng te day doon lu matale lool li mu leen war a ñaanal lépp ak li mu leen bëggal lépp mu ngi ci biir xaside gi xaside gu mat bàyyi xel ba tax sëriñ bi ci ay mbindam day ñaanal mboolem jullit ñi fu mu toll rek ci mbind mi ngi leen ñaanal ci biir xasidaam loolu nu waxoon ci mat matlabu sifaay rek ci li nu firnde ju rëy la ci ci ni mu yéene jullit ñi ak ni mu leen di ñaanale am na xasida gu mu tënke fastajaaba lahum rabbuhum moom da koo jagleel jullit ñi di leen ci ñaanal sunu boroom musal leen te dindil leen seeni njàqare defal leen kóolute akuk sell mu ngi leen di ñaanal ba tey ñu mucc ci lépp lu ñuy ragal te am ngën ji mbégte mi ngi leen di ñaanal ñu mucc ci fitnay tooñkat yi xasida gi xëy na daa bokk ci yi mu binde gànnaar ndax dangay seetlu waxin wi ni mu niroog yooyu doon xew gànnaar ci xeetu fitna jamono ji fi sëriñ bi di nekk ba loolu sax moo waraloon mu bindoon wakaana xaqan booy seet li muy ñaan ci xaside gi indi na ko ci wakaan xaqan te moom wakaan xaqan wér na ne gànnaar la ko sëriñ bi bindee ba tey ci xaside ak yaa rabbi bil Mustafa waxin wi dina ci feeñ te moom it nee ñu daa am naar yu dikkoon yu nekkoon ci fitna ak mbas mu daloon ci seen kaw ñu dikk jàmbat ko sëriñ bi mu bind leen xasire googu nee ñu juróom-ñaari nit lañu woon ba ñu yegsee di nuyoo daa fekk sëriñ bi di fatu bi mu génnee la leen jox xasida gi moo tax mu tàmbalee ci fayug nuyoo muy wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw nuyoo boobu mu ne leen jàpp leen ci bayit yi saafara la ci jëpp jàngoro te di musale ci pexey mboolem noon yi fa haakum haadihi l abyaata shifaan min kulli daa in wa xisnan xasiinan min makaa'idi jamiil aada euh, lii lépp rek di gën a firndeel ab taxawaayam ci jullit ñi di firndeel it ab taxawaayam ci xeetu yonante bi salallaahu alayhi wa bu nu dellusee euh, indi tuuti ci bayit yi nga xam ne mi ngi koy wax ci biir xasida googu di yaa rabbi Mustafa di ci ñaanal julli ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu